musique nan ko way merci beaucoup e xoolal jàmm jaa ngi sonn lool maa ngi sonn lool xewal gaa ngi sonn lool miir bu tame baa ngi sonn lool nan ko way rama jaay ay sa yaay yaa bari jom mbokku day lamin jaa way wi yaa ko moom lamin nee na la seetaan nga fi ñaaw

tey ma joobe la waay yaa ma ne woon ma yaa ma te nekkatoo ma su ma gisee ne ma su yàggee ma ni ko soo newul soo ma noppee dinaa ni ko kaay kaay kaay waay kaay ñu ngi beral uh, nuyoo sant bu baax honorable conseil yu fi toog mais également de nous, le monde artistique de accompagner la mairie de Thiès Nord pour réaliser cette belle journée culturelle. Mais particulièrement, nous nuyu Ndaysin, une artiste achevée. Mais également, son frère Ngouri et Abou. Mais nous devons mention spéciale à la commission culturelle de la commune de Thiès Nord. Je crois que lui, il faut être courageux am audace pour mun ko parce que musul am donc lu musul am bokoy tambalé xawa mais je pense que c'est par votre audace nous ni far fort dinañ ko et aujourd'hui je crois que nous na une réussite totale et je crois que chaque le 25 promenade des Kessoua dina am 31 mais chaque le 25 décembre commune Thiès Nord dina am sa veillée culturelle. par anticipation population Thiès année une année de santé de prospérité mais également de bonheur et de paix lolu dañ koy ñaanal ñëpp ñun nak ay lañu. ay Baay Faal la yu nga xam ne askan gi moo ñu fi teg pour ñu liggéey sànq lim nañu li nga xam ni moom la mairie jot a def mais dama ne loolu asaka la rek mais bëgg nañu dans trois mois li nga xam ni moom la ñu mébétoon ci 2015 bi te jotuñu ko def dans les trois mois yi ñëw nit yi dinañ ci teg seen bët loolu duñu duñ ci wax parce promettre mais ja rendez-vous les populations de Thiès Nord trois mois nous allons régler le problème du et Sam donc définitivement rond-point le boulevard Mao Doucouré sera totalement aménagé le boulevard Xavier nyonou le boulevard Ngent le mur Bissini même la bande de nga xam station ngent dem épicerie bi dinañ ko aménager def ko parking je donne rendez-vous tout simplement aux populations de Thiès Nord trois mois rek la leen jox pour ñu gis ni li nga xamni mom mom lañu am yaakar ba tek nañu tek na ñu fi duñu am gatché donc lolu la amone ci kàddu du leen gërëm du leen sante du ñaan que la fête se continue et que la fête soit belle du ñaanel ñëpp au bon retour je vous remercie. merci beaucoup monsieur le maire jërëjëf Diallo. ma ni tey bis la boo xam ni bis boo xam ni kenn waru ko fàtte parce que bi mairie bi nekkee ba léegi lii mu fi soog a am nat nit nat su la defalee loo xam ni musoo ko am di ko wax. monsieur le maire Lamine Diallo ñu ngi lay remercier ñu ngi lay remercier di la ñaanal yalla yalla bàyyi la sunu kanam parce que maire bu am vision nga maire bu ñimee loy def nga maire bu am ambition nga te man ku am ambition ah la looy def am fit damay and ak yow lolu motax ma and ak yow té lima ma ak yow reccu ma parce sama commission sa bu ma waxé nga ni ma président li ak li koku dama koy wax diko waxat parce que ya ko def boko ko deful loolu du ko wax donc ñu ngi lay ñaan di ñaan ñep artiste yaa ngi nii déglu leen déglu leen ngir yalla ah artistes yi di ngeen nekké fi ba légui yeen yeen a ngi soko a jot subvention te subvention fu ngeen ko jotee ci maire ci ci kii Lamine Diallo ngeen ko jotee kon remercier leen le maire Lamine Diallo xam ne mu ngi góorgóorlu na ngeen gëna a na ci mbir mi tay fête bi na ngeen xam ni chaque année ba mandat bi jeex ci date bi na ngeen xam ni Lamine Diallo dina nekk ak yéen nekk ak jeunesse bi jàppale leen ca mu ngi koy def jàppale na artistes yi dem Demba Ndiaye jox leen ay subvention yoo xam ni ku si nekk presque groupe bu nekk am na 75000 loolu mosu fi am kon nag bu amee na ngeen ko loolu na wax ni loolu nekk na ñun ñu ngi leen di ñaan fête bi ñu ànd ko ak sunu maire moom la bëgg moom jeunesse jaral na ko lu nekk. mu ngi fu nekk mu ngi jàppale ku nekk dangam lu euh, euh, xeebul kenn mu ngi ku wax mu ngi si mbiram donc dama bëgg tey jii ñun ñëpp ñu ànd jàppale sunu maire ca xam ni zone nord bi mu nekkee zone nord ba léegi wax dëgg yàlla xale la waaye lim fi def nag c'est visible nit ñi mën nañ ci teg bët parce dama leen di wax benn affaire mbir du lu ñu wax rek nga reculer lu ñu wax nga reculer li muy am nay ambition am na vision mu ngi def li ko war c'est un maire de plein exercice amul ma Samba amul ma Matar sa territoire yaa ko moom lu la fi neex def lu la fi neexul doo ko keneen mënu ñëw. on applaudit maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di leen gërëm di la sant ngeen toog ànd ak seen maire ñu féete fête bi jusqu'à l'aube je vous remercie. je me sens concernée parce que man ngent xam quand je vois que amna dara xamantene xewna sama je sama devoir c'est d'être présente donc je et comme je l'ai toujours dit à l'endroit de monsieur le maire Lamine Diallo ko man un maire comme toi bëgguma un maire dans son bureau du xam lan moo xew ci zone mais à chaque fois ma manifestation Ngent dama ko merci beaucoup monsieur le maire merci beaucoup. D'abord, euh, remercier quand même euh, la commission culturelle euh, l'honorable conseiller Saliou Fall jiite l'honorable conseiller mais ah ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yore commune euh, commission culturelle si initiative bu ñu jël tey pour que commune Thiès Nord mun a jagleel bien ben veille culturelle au monde artistique comme nous le savons, la commune Thiès Nord c'est une commune la plus culturelle même du Sénégal tous les grands artistes de renommée nationale ou même internationale Thiès Nord le ñu donc lolo day de war ñeu mëna ñaax pour que li nga xam mom la culture wara mëna am ci suñu ci suñu ci suñu suñu biir budget wala suñu commune mu am ko motax ñu ci donc fan yele def nañu subvention pour les troupe culture mais également nañu toute toute une nuit au monde artistique sargal won ni quand même carrément ni ah, carrément au niveau de la commune Nous mom une soirée culturelle artistes yëpp yu nga xam ne Thiès Nord ñëw ku nekk def sa prestation au grand bonheur des populations de Thiès. xam nga lu nekk rek dañuy dañuy innover parce que jàpp euh, Thiès li nga xam ne moom moo fi doon am mooy 31 décembre loolu euh, ba léegi dañ ciy ànd pour que loolu doon am mun a wéy mais nak, comme commune la ñu aussi war nañoo mun a am initiative def li nga xam ni loolu dañ ko dañ ñu momel moy ñu ñu jël ben journée si si si mois de décembre bi ne ko commune Thiès Nord la fépp fu Thiès waa nekk rek war ko mun a ñëw teewe xëy na tey euh, bii njalbeen la communication bi nuñ ko war a jàllale woon dans les médias demewu ko mais incha allah lu ñuy wax rek wàññi bu nekk ci benn lay tàmbale ci at yi ñu ñëm bëgg nañ koo def ba nga xam ni Thiès yëpp mooy mobiliser wu ñëw commune Nord fêtée le 25 décembre. xam nga d'abord bu réalisation bu moy euh nga ni nam ba ñuy ñëw commune Nord courant amul ndox. bureau yi amul mobilier manam amuñu amuñu pour boo demoon tey mairie commune Thiès Nord loolu yëpp am na fa donc tey si biir Thiès mun nañu wax ni euh, amuñu benn bureau bi nga xam ne amul jumtukaay boo war a liggéey suñu salle de délibération aussi bokk na si salle de délibération au niveau des des communes salle de délibération bu nga xam ne mun nañ cee naw. benen bi moy il fallait aussi ñu jégué état civil bi aw population parce que mairie ba siège bu mairie ba fu mu nekk population yi ñu am accès lolu motax ci rond point Ngent bi ñu défar fa état civil ba nga xam dina jégué population bi mais ba également euh, ñu ni aussi euh, doomu adama jàng la mais aussi diiné la njàng bi aussi ñu taxaw ci fexé ba ci rentrée bi ñun ñoo ñëk def rek ubbi tay parce que si on a ci semaine ba rek fourniture la joxé classe mais aussi fexé de créer les conditions d'accueil pour les élèves et les enseignants am na aussi ay classes yu nga xam ni réhabilité na ko comme yu mel ni ñaari classes yu nekkoon Idriss Diop nga xam ni ça fait plus de quinze ans classes yooyu dañ ko mu doon tëj ndaxte anam yu mu mel mënuñ ko def donc pour rendre fonctionnel te ñaari classes yooyu pour le même inspecteur bi inspecteur Talla Faye da koy récupérer da ko jël mu. pour jox même élèves yi nga xam ne ñu ci collège par faute de classe donc kon donc ñaari classe yooyu dafa dem sax légui dañ ko euh, élémentaire la waron dem mais dafa dem sax dimbale collège bi si effectif pléthorique yi nga xam classe yi am nañ ko mais également ba ñëwé aussi euh, coonaax nga xam cimetière bi yag na amul amul amul clôture ñu clôture ko on a été agressif donc les au niveau du de de la jeunesse sport donc fekkoon nañ fi subvention soixante mille ñu yóbbu ko cent subvention au niveau des zones bu ñuy final amuñu mairie bi subvention nous avons donné 1 million de francs par zone pour jàppale pour ñu am une une une belle fête donc am nañu aussi gis marché central bon camion jën yi amuñu donc nous avons investi 12 millions pour réaliser une plateforme de stationnement des camions frigorifiques gis nañu ni aussi ambulant yaa ngi woon biir marché central il fallait aménager un espace pour mun a abriter ces ces tey espace boobu pare nañu mais li nga xam ni moo ñu ëppal solo ba ëppal solo mooy il fallait quand même ñu continuer la cadre de vie de la commune Thiès Nord da nga xam ni ba ñuy ñëw le marché Sam moom moom dañ ko ñu fa doon nekk dañu leen fa jëlee woon ñu tasaaroo xoj. pratiquement le rond-point Ngent ba ba ba loolu moo ñu waraloon sax pour yeureum ñooñu ñu ni len nañ len may ñu toogandiku ci boulevard euh, Mao Doucouré bi mais inshallah 2000 deux bi dinañu. mun naa ni donc ci délai bu gàtt donc mu le Mao Doucouré sera libéré et ce boulevard sera aménagé bolé ko Xavier Nione bi sera aménagé boulevard gent sera aménagé et aujourd'hui on va faire partout au niveau du marché central toutes les voies qui nga le marché central des parkings payants donc pour vous, suñu ambition une dinañu les compétences les compétences transférées mais aussi le cadre de vie au niveau de la santé aussi déjà le 28 avons 8 millions de médicaments aux 10 postes de santé nous y aussi 6 agents de compte yu nga au niveau pratiquement des postes de santé pour aller pour un peu le comité de gestion par rapport à la prise en charge des salaires donc nous lim ñu ngi tàmbalee mais bëgg nañu euh, nit yi xamni carrément ni ah euh li fi li fi nek dal mo tane li fi nekkoon donc loolu lañu ñu def parce que loolu moo tax changement am sinon ñun suñu suñu amuñu sens pour nekk fi voilà. parce que tay même ñun suñu agent yi buñuy dem du changer ampoule yalla mo leen di dimbale rek mais fu nekk le musiba mun a parce que le réseau est vétuste mais aussi constaté nañ ko aussi marché central nous nous connecté woo si réseau électrique bi dafa ëpp dayoo yooyu aussi il va falloir que ñu ñu réglementer ko jël ci ay mesures ba nga xamni euh jaloore yi nga xamni ni yi nga xamni ñu ngi am marché central te courant bi du ko indi mu wara a mun a wàññeeku. waaw wax rek moy d'abord ñaanal leen pour que at bi nekk atum jamu atum natangé atum euh, wërgu yaram ak wërlé mais également ñu jàpp xamal leen ni le meilleur est à venir xëy na première année dina am ay rëq-rëq yow xam fooy teg sa tànk di nga am ay jafé jafé. mais yooyu yëpp ñatt nañ ko ba xam fan la jafé jafé yi nekk ba xam lan mooy suñu point fort lan mooy suñu point faible yooyu nag buñ ko capitaliser je crois que 2016 bi nag amatuñu droit def benn erreur Lors moo tax sànq ba may wax dans trois mois dinañu gis li nga xam ni carrément ni wa euh, dinañu xam ni ñun ñi commune Thiès Nord le conseil municipal de Thiès Nord population yi motax ñu nek fa lenen soxaluñu moy liggéey ba population yi mëna xamni carrément ni ñu